sëñ Adama dégg nga ko muy waxtaanee rek li nga xamante ni moo aju ci wàllu ndaw ñi ndax gis nañu ndaw Sénégal euh, doon nañu ndaw yoo xamante ni sonn nañu ndax wàllum liggéey wàllum xëy lott nañ ci lool gis nañ ci ni nga xamante ni jëlee woon nañu gaal gi ay jamono ba ñu ci bëri ñàkk ci seen bakkan mu ni lu metti woon askan wi ndax njaboot yu bari la laal yéen da ngeen wax ànd sàmm jikko yi dëgg la waaye tamit taxawaay gi nga xamante ni na nga koy taxaw ci li nga xamante mooy wetu ndaw yi ak nguur gi ni mu war a taxawee ndaw ñi lan moo ci seen jàngat jërëjëf dañuy commencé di sant sunu borom mi nga xam ni xéwal bu waaye moom donc moo la ko may julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam donc euh, di nuyu sunu gan yi mm-hmm. nga xam ni gis nañ ci ñoo xam ni seen temps yëpp ñu ngi ko def ngir régler ay problème mu jeunesse bi mm-hmm. problème mu ndaw yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla gis loolu mm-hmm. man xaj na bu ma dul expert comme euh, monsieur Seye tamit euh, expérience dina maye et ah. expertise ndax defna immigration 15 ans mhm. te dama ko téla def ba may génn fi 16 ans la am mhm. donc euh, walu diaspora day bir mo xamni c'est sacré mhm. c'est-à-dire nañu war a fonke sunu ressources yi pétrole bi ñuy n'a nañ ko wara fonké tout saytu ko noonu lañ war a saytoo diaspora seeni mbir parce que li ñuy indi ci dëkk bi daanaka xaw naa tollook richesse wu bi ñuy produire ci dëkk bi ñoom dañ ko fay jële di ko di ko fi waaye man toujours li tax sama sama sama interprétation du du du day xaw a day xaw a doy waar mm-hmm. mooy man bu ma gisee situation ñuy attardé wu ca solution ya mm-hmm. ak di di di ci di ci débat ah, Espagne jox nañ lii kii jox nañu lee man man du ma déglu loolu du ma déglu débat boobu parce que man li may naqari cause baa fi mm-hmm. cause bi jur musiba baa ngi fii nañu régler cause bi bu ñu régler cause bi dootuñu soxla ay Espagne duñu may bañ naan ñëw mm-hmm. yegsi na ak yegsiwul mooy li euh, li ben borom xam-xam di wax ni na mbirum nit ku ñuul li ñun suñu problème mooy li borom xam-xam bi ne mbirum nit ku ñuul yéem na ma ndax àddina bi dañ koo bañ ba pare mu wëbati ko bañ boppam mooy dañu am njiit yoo xam ni dañoo bañ seen bopp bañ ñu Louis Farrakhan mooy euh, leaderu nit ñu ñuul ña ca ca Amérique dafa tëb ba ci àgg mu ni daal dëgg-dëgg Afrique suñuy mbokk lañu bu leen du leen wër ñu ñuul ne Amérique ni leen nañ dem jàppale Afrique ñu jël ay milliards de dollars. Hmm. yenn kon yi nañ ñëw investir. nee na dëkk bu mu dem boo président ba pare président ni ko luma ci am mu ne ko déet mais ñun dañu ñëw déet déwén ngay wax loolu ñu ne ko ah, kon demal ak sa xaalis ba mu paré dafa am ben discours bu gatt bu mu def. Hmm. mu ni le principal malheur de l'Afrique c'est des pays africains c'est qu'ils sont dirigés par des gens qui n'aiment pas l'Afrique hmm. musiba bi gëna mag bi dal Afrique. mooy ñi ko jiite bëgguñu Afrique parce que suñu problème bu ñu ko regle dafa neex a régler mm-hmm. tey par exemple da ngay gis nooteel gi nga xam maanaam président yoo am fulla la amagul nooteel gi ñu nangu ñu ñu koy noot comme ni ko euh, soxna Awa waxe mm-hmm. tey jii yow euh, euh, ñi ñuy rapatrier nii demal nga xool mm-hmm. boo xoolee vol ba yëpp doo ca gis ñi am doctorat yu yu kawe yooyu cest à la gën ci ñun ñoom dañ koy jël. Mhm. duñ ko rapatrier. dañuy segg mu ne fuite de cerveau moo am ñu ngi ŋàcc lépp la gën ci ñun. Mhm. dañ koy jël foofa. bu ñëwee fii sunu richesse aussi. jël li gën ci ñun fii li gën li ñu am aussi ñu jël ko yóbbu yobbu ci ñoom. yooyu yëpp muy loo xam ni. Mhm. sunu sunu gars yi ñoo leen ko may. ndax ñàkk fu la. tey par exemple seetal am na multinationale boo xam ne nañu Afrique fii. 80 mhm. chiffre d'affaires Aïe, ay ay tubaab lañ 80 chiffre d'affaires mondial am ñan la exactement. Moi Bolloré. 80 mhm. chiffre ah. d'affaires am. Mhm. Afrique la de fait. mais nina à la fin 20 régler investir rek investir Afrique a euh, yeneen 80 pour cent de qui dem dëkk ya nga xam ne defeewu ko. ay ay Chine aïe ay Inde di fa investir te pourtant fii la koy liggéey donc loolu day loo xam ni maanaam tey ñoo ko war problem bañ bu ñu ko bañoon suñu problème dina réglé ndax bu investiroon loolu fii rek mhm. kon du ñu am euh, jafe chômage bu bëri bonne gouvernance waaye tey ñit mënu la ji accord de pêche yi ku ne xam ni xale yi moo tax ñuy dem mhm. tey da ngay napp war dem ba Mauritanie ñu la fay ay bal te bu njëkk da ngay xëy ak sa gaal balaa balaa tisbaar nga nga wàcc indi jën bu dul jeex parce que ñoo ka nga mhm. lay ci injustice mënu jangal bonne gouvernance mënu la jox leçon parce que ñoom tey ñoom c'est-à-dire tubaab yi sax ils sont mal placés pour jox président yi suñu euh, leçon parce que ñoom ñoo leen di poussé ci mal gouvernance fi may daanele mhm. mooy tey boo gisee dëkk bu mel ni Allemagne du nërmeelu Covid ak leneen ci yem crise bu am ñooy numéro un ci économie européenne L'état tax ñu dëgg li tax ñu dëgër mooy seen état dañu imposer bépp bépp société bu fay liggéey 15% mhm. pour cent ci sa liggéey liggéey

Par rapport à l'immigration, on parle aujourd'hui de l'arrivée également de la visite du Premier ministre espagnol. Oui. Et, convention initiée Oui, convention pourquoi pour en réalité euh, euh, négocier euh, émigré enfin ñi sommes ñi Sénégal ñu te Espagne que certainement dina di leen nous mhm. ñu jéem a organiser euh, ci jàmm ak pour indi Amana mhm. amaana euh, sànniwaale leen quelques weccet pour que euh, ñu allions yi mën a toog ndax seen ñaari pays ñu mën ko defar ba dara surtout insister sur le fait que nous mhm. il faudrait que nous jox leen weccet éventuellement éventuellement même sûrement pour euh, euh, euh, calmer d'abord le gouvernement en espérant que les gens aient aussi dinañ am euh, euh, as suut bu ñu mën permettre ñuy suivre ces activités activité fii ci hmm. après dinaa ci laaj benn question sax le président par rapport à ça absolument hmm. donc donc donc je je enfin je, je pense que pour l'heure là loolu moo j'aurais voulu avoir un premier ministre un premier ministre espagnol qui débarque au Sénégal pour carrément autre chose pour négocier xool exactement entre Espagne lan rapport commercial xool nu ñu koy améliorer pour que ñaari dëkk yëpp euh, euh, gis ci seen gis ci seen bopp ci euh, yooyu lañ doon xaar entendre ñëpp en tout cas Sénégal dégg ni premier espagnol dafa ñëw pour xol nan la mëne xalé yi nek Espagne mënu ñu leen jox kayit té bëggu ñu tok fofu nan la nan la ñu mën organiser ak état du Sénégal pour que état bi engagé wu ñom ñu jël leen indi leen fi teg leen té seen digënté baña ñaaw mhm. ñu yok ci xaaliss pour que éventuellement espérer que ni xalé dinañ ci non nous lañ ko déggé bu fekkee dafa am leneen lo xamné ne comprendre ñu ko à limite nañ ñu ko leeral mais je pense que ni lolu principalement moko fi indi et je dis que c'est dommage je dis c'est dommage parce que parce que lolu waru won waru won waru won nek mbir mi encore une fois et euh, on se rend bien compte que ni euh, suñu njiit yi euh, tooñ nañu tay tooñ ñu démb tooñ ñu parce que buñu ñu assurer woon la bonne politique dans un pays qui fait aujourd'hui 15 à 16 millions de Sénégalais amana xagnna du ci am monsieur vous m'avez marché sur la langue parce que pour éviter de le répéter je vais essayer de dire autre chose mais c'est d'une évidence que ni li nga wax mom moy deug Sénégal faire des scènes comme tu réfléchir à une solution pour que les gens puissent mettre les dans les conditions pour que nous puissions travailler normalement, aisément dans leur propre pays. Imaginez bien un pays qui fait à peine 200 000 km. Sénégal, 15-16 millions d'habitants. Si 5 millions de Sénégalais travaillent normalement, 5 millions de se Dem, normalement. 5 millions, 4 ou 2, ou 2 millions et demi ou 3 millions de retraités, les femmes ou les le problème serait résolu 15 à 16 millions d'habitants. Vous voyez, il il se trouve que ni, depuis 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, c'est toujours les mêmes politiques. ont ce programme et on s'en rend bien compte que ni, chaque jour, nous avons besoin d'aide. mais xale yi il faut ñu dem immigré ji parce que xale yi dañoo juddu màgg ñu ne dañ leen di yóbbu école di vivre ci ay conditions yu métti ñii rëcc am ay diplôme ñii rëccuñu ku nekk ak ni la yàlla bindee waaye taxul ni ñëpp ku nekk boo juddoo sa kër ak sa kër ndey ak sa kër baay bëgg nga réussir bëgg nga am ay succès bu dee jigéen nga bëgg nga bëgg nga am li nga bëgg war nga mën a am li nga bëgg am sa jëkkër bu dee xale bu góor la war nga mën a am sa liggéey am ay am njaboot am kër am confort, le minimum que j'appelle incompressible, euh, Ramatoulaye. Et pourtant, ça fait des années que l'on mënul am. Les nag au négocier si nan la pour développer le pays. jéem espagnol yi français yi occidentaux en général comment est-ce que vous pourriez faire pour Indienne entreprise Nous ñu collaborer c'est ay entreprise ci réew parce que ñun am nañ ay opportunités mm-hmm. suñu dëkk yaatu c'est un pays à construire Sénégal muy Afrique en général de yu ñu wara tabax la mais surtout le Sénégal ak aspiration yi mu am ces derniers temps ci walum ressources ressources minières merci donc c'était mm-hmm. une occasion une mm-hmm. opportunité Ramatoulaye pour finir pour que Sénégal euh, euh, ñu xam ni euh, li ñu wara def politique de jeunesse fexé def ba nga xam ne li ñu bañ ko dem ci jënd bitim réew jëma fexé ba tabax ko ci réew Sénégal moy dëkk bu nga xamné ne rabatulaay mhm. pousso pousso pousso dañ koy jënd bitim réew ci 2020 pourtant ya nga doon wax jiit est-ce que bëgg nañ suñu réew monsieur mbop mais jiit mënu ñu bëgg suñu réew ndax do mësa gis euh, euh, Macron wala kii ñëw fi démb nu mu tudd xaw Sanchez xaw ma lan ba premier ministre espagnol bi ñu ne ñëw dañuy jënd kër Saly wala dañuy jënd kër Ndakaaru wala dañuy jënd kër euh, Tivaouane Peulh duñ ko mës a de waaye pourtant tous nos dirigeants xool leen monsieur Mboup monsieur Seye la moitié les trois quarts de nos dirigeants ici dans ce pays là ku ci nekk muy socialiste muy libéraux yi ñoom ñëpp ñu ci bari amoon ay ndombol tank amoon ay responsabilité amoon ay possibilité am xaliss ñom ñëpp jënd nañu kër bitim réew muy France muy Espagne muy États-Unis muy Canada di fa fay ay impôts. di continuer de dundalaat ñooñu kon li ñu war a def il se pose boo leen naaj ndax bëgg nañ réew mi luy faraxal l'imu mu wax noonu dëgg je l'ai suivi il a parfaitement raison parce que ku fii ku fi nar dans indi dara sax ay responsabilité pour xalé pour bo yi yow sa yow en tant que sénégalais il faut jël luy faraxaan nga teg ko de yow en tant que sénégalais tay bo indi won yenn yenn yenn yenn am ay investisseurs yu ñëw fi ñu bëgg ci bëgg ko yobu ci président de la république nga bala ko kooku yegg ci président de la république sax li ñuy def moy ñom ñaata la ñuy am ci commission ñom lan la ñuy bokkee ci mbir mi donc ñom ñoo bëggul sen réew Poutine amna lu mu wax pour terminer Vladimir Poutine néna Africains africain dañu bëgg Afrique juste rek quand ils sont morts pour leur cimetière

espagnol pour terminer. Merci. Pour terminer, il est juste là. Espagnol il est juste là. Ouais. C'est un homme de gauche, monsieur Sey. Mm. Mais il est là pour défendre les intérêts de son pays. Et je pense que Luis Sanchez a raison de défendre les intérêts de l'Espagne, autant que les Sénégalais

mbokk yi nga dalal yëpp di leen ndokkeel di leen ziar di nuyu it ñu bokkal plateau bi macha allahu taala di ñaan yàlla mu dolli jàmm ak naataange ci réew mi. xam naa ni ma ko waxee woon am na jataay bu ñu fi mujjee daje. di masawu bu baax monsieur Seye moom it. Uh-huh. tabarkàlla ci nattu bi nga xam ne daloon na ci kawam fan yële. te ñu waxtaanee woon ko ya ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla taxaw yàlla sàmm ko te aar ko. xam nga waxoon naa fi ci jamono yooyu ne Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si Al Maktoum am na way wu bindoon bindoon ko ci 1960. Mm-hmm. way wa daf ko tàmbale woon ne yaa Sénégalu bakayta kulla bukaa'in Serigne Cheikh daf ne Sénégal dinga nga jooy jooy yu méttee méttee méttee méttee xaw ma dinaa fekke xaw ma dinaa wuute waaye Serigne Cheikh ne na Sénégal di nga toog bëccëg nga jooy jooy yu méttee méttee métti mu mel ni dañ ko laaj ne ko maam Cheikh lan moo tax Sénégal di jooy si buñ tolloo boobu jamono mu ne li taxawul li wax tawaxuli subbaani fil basa suñ demee ba toll ci jamono boobu jeunesse bi dañuy aventuré wu la ñuy wax jëme seen bopp ci lu leen di alak ndax lan xajatuñ ci réew mi mënatuñ fee toog amatuñ lu ñu tedde sono rama dafay metti ci ndaw tey boo seetloo sama classe gépp bu ñu waree takk soxna sax dañuy jéem a xool jigéen joo xam ne jàpp na ci dara ji dara mhm. ndax lan la parce que ñoom seen jëm mënuñu cas social la ñuy mm. amuñu xam nga tey ku sañoon booy takk soxna yaa koy yor waaye bu demee ba góor am idée wu ne man bu ma waree takkati soxna sax damaa war a gis ko am dara pour takk ko kon am na responsabilité bu dañ la ko indi mooy lam ko war a yoree xaj na nekku fi jàppul ci dara amul ci dara kooku bu déggee ñu ne xaj na dëkk sàngam ku fa dem danga tedd ku fa dem danga fa amee teraanga lii nekk ci boppam rek mooy mu jaayante dem suy neex day jaayante dem xam nga ñu ngi wax waxu gaal yeeg bateau yi mais rama ñiy dee ci yoonu suuf wi mm. man am naa sama frère boo xam ne mm-hmm. toog na plus de huit mois yoo xam ne ci mbugal mu metti lay xëy ci lay yendu di ci fanaan buy woote téléphone day ñaan lu ñu dajale yónnee ko ko ngir ñi ko téye di ko mbugal man koo libéré pour mu kon ne aw yoonam te du moom rek ay junni junni moromam di daj lool ngir lan njortu nañ ne réew mii ñu toog li nu fi gis dalul seen xel lan lañ fi gis waxoon naa leen ko fi da ngay juddoondoog nit ci koñ bi ngeen yaroondoo màggandoo nga dàq koo jàng gën koo correct mais ci ay période yu gàtt mu tedd am alal di la romb lan moo ko ko may xaj na dafa am ci partie bu mu dugg wala xaj na dafa dugg ci politik bi wala xaj na dafa dugg ci nangam moo ko may li mu am waaye bu fekkente ne sa xam-xam nga bëgg yaakaar sa doole nga bëgg yaakaar doo fi teddee pour nga tedd fi il faut nga nekk workat il faut nga nekk wurujkat il faut nga nekk tappalekat su réew demee ba tege foofu kenn mënatul a téye seeni ndaw ngir ñu toog defar réew ma te dañ toll ci jamono boobu bañ na ko ba domaine yëpp domaine yëpp laa wax rama bum ci doon ku ci ne yaa ngi xool foo mën a jaar ak say tappale pour am boo duggee ci école yi looloo fa nekk jàngalekat yi talatuñoo jàngale ndax lan njortu nañ ne toog ci école bi di jàngale di xaar salaire du leen tax a tedd kon nañu tappale wut fuñ jaar ngir tedd ñooña ñi ñu war a jàngal kañ la ñuy jàng ki war a faj nekk ci hôpital bi gëm ne man kat su ma toogee ci hôpital bii di faj respecté sama liggéey li ma fi war a jëlee weer wi mën ta faj sama benn soxla ci tappale laa war a dund ngir tedd mu commencé tappalem foofa kañ lay dox nga ñëw ci diine ji sama classe gépp jàpp ne buñ toogee ci seen daara daaray alquran nekk nit ñu jub di jàngale tegu ci yoon du ñu tedd nañu nekk ay tappalekat ngir tedd ba kañ ñooña kan la ñuy gindi kan la ñuy jubbanti waa bu réew mépp demee noonu fépp feebarandoo mais kañ la ñuy faju wér du am il faut ñu dellu siwaat ñoom ñi ñuy jiite waxuma nag pour ñi fi nekk ak ñi fi paase ñuy bëgg a ñëw ñëpp gis nga damay wax ne rama li ñuy wan buñ soxlaa suñu réew mii ak di ñu ko dikk billaahi buñ toogoon sëgg ci benn ndaw dootu fi génn waaye ma al asaf dañ ñuy nax mhm. ku la ci jàngal programme am nga ne est-ce que waa jàngi waaye bu faloo ñetti at mhm. nga laaj ndax kii moo doon jàng programme ba nga xam ne moom lañ soxla woon ba teg ko ci réew mi nañu góorgóorlu ñu xam ne réew mi kenn du ñëw di ñu ko defaral mhm. du ay japonais yi ñëw di ñu ko defaral c'est naa leen wax na ko léegi kenn ku ne ci ñoom liy yitteem fii te mu soxla ko noonu rek lay dundee parce que dañuy dund dundu jën dund jën mooy lan ku ëpp sa morom doole rek reere ko ku ëpp sa morom doole rek añee ko baay bu saaxoo nag wax ne réew moo xam ne ku ëpp sa morom doole reeree ku ëpp sa morom doole añee ah foofa ña gën néew doole dana metti ci ñoom mm. waaye nag yàllaa ngeen wër sa gëm yàllaa ngeen wër sa gëm woo xam ne fu waay nekk dana ko jox dañu dimbaliwaat ndaw ñi mm. utal leen ci ñu jàpp dimbali leen gindi leen teg leen ci wallahi ndaw ñii di daw di dem ci àll bi ku ci mënoon a toog fii tedd ñàkk pexe rek la doo génn dëgg la ku ci mënoon a toog fii tedd billaay rama sori sa ndey sori sa baay sori sa soxna sori say njaboot ay at xamoo ci luñ nekk lekkuloo naanuloo ngay fanaan ci ay mbedd di fanaan ci ay mbaar di fanaan ci ay tali wallahi boo mënee toog ci sa réew mi loolu gouvernement bi lañ ci ñëw